abonné leen ci seen chaîne YouTube la Ibrahimiya TV la Ibrahimiya TV bu leen fàtte notification bi pour ngeen mën a jot suñu yeneeni vidéo bàyyi fexe mel sax ni ñenn taalibe yi nga xam ne dañoo dëdd bànneexu àdduna sax ba dañ daan toog di gëj ci seeni soxna ba bàyyi moo leen daan wax moo leen daan digal yuñ jëm ci seeni soxna ngir dëddu goo xam ne dëddoo nañu àdduna bàyyi ne hakaza ti nii day ñi mel nii de ñooy samay taalibe wala xayru ku melul nii doo sama taalibe voilà kon nag foofu lañu yemoon mu continuer ba tey ne fala budda min rujuun ila bi tawba ne du mën a de ñu dellu ci yàlla ci tuub fatubu ilallahi alquran wa jamian ayyuhal muminun alquran digle tu baye ne leen baye digle ngeen tu dam ci yaram na ngeen di def ndigale wo ci nabul deng na ngeen di mooy tere wo zuhd na ngeen di dudu aduna wala wara na ngeen di suufel seen bop ci walu yalla wata ta'allum na ngeen jang li de la digle rabbi Allah na ngeen delu ci yalla na ngeen tuum na ngeen def ndigale na ngeen baye tere ya na ngeen aduna dëddu àdduna ak ci maanaa la nit dina sol yére yu rafet nit dina xoom la lool nit dina nangam lool fekk bu xol baa nga dëddu àdduna xol bi lañ soxla dégg nga waaye bàyyi ne na ngeen suufeel seen bopp te yàlla tax waaye na ngeen fexe itam di ut xam-xam mu indi aaya bi yàlla wax ci alquran ne wa qul rabbi zidni ilman xam nga def ne na ngeen sàkku xam-xam mu ne qaala taala li waliyil awliya yàlla fox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul bi nga xam ne mooy wëli yi mbooleem wëli yi ne ko qul waxal yow muhammad ne rabbi zidni ilman ndege mi sallallahu alayhi wasallam mooy sàkkoo yàlla sàkkoo doll dollal ci xam-xam waxuma laa kudul moom suratu taha aya 114 bàyyi ne ba tey fa alladi yaliqu bil muridi allah yaqifa sayruhu allah yaqifa sayruhu bàyyi ne lii war ci taale bi mooy bu sayrum taxaw ne taal bi ndax bu sayrum taxaw xataa daal laxiqa biya bu demee sax ba seyrum moom jiboom boobam dem ba ek ci fi man sës fi man mooy jot na ma wa ashkala tam jafe alay ak ci man sama kaw xaalahu xaala ma dem ba xaalam tëma yar xalu dana laxasaa ila cheikhin jëm ci beneen sëriñ ba moom ala mi ni maqaana maqaaman moomu gën a kawe maqaama wala bàyyi nim ni mu yoon wi na mu ne taale bi sëriñ war a taxaw su demee ba jot ma sax ma xam ne man man am naa problème ci xaala manatuma koo dimbale ci yàlla na dem wuti beneen seriñ bu ko mën a yokk bàyyi bëgg laa jàngal ne seyru du taxaw dégg nga waaw waalamu rahimakumullah araba yoo xëy noonu yal na yàlla yërëm leen na ngeen xam ne xam leen leen mooy yal yàlla yërëm leen na ngeen xam leen mooy la anna kathiran min al muddaina sadda nnaasa an sabila na ngeen xam ne ñu bëri ci wootekat yi dañoo gàllankoor yoonu yàlla wala yaasu billah bàyyi ne lu tax mu ne bi adamin istiqaamati ngir ñàkk jub bàyyi mu ne ñu bëri dañu gàllankoor yoonu yàlla mais dañ ne ko ma bàyyi lu tax mu ne ngir ñàkk jub waaye yow yaay xoote ñu ne waaye jëlee mooy xoote kat jëm ci yàlla nit ñi xool fekk ne jubut nit xool fekk ne jub waaye waaye ne xay kon ki ne mooy xoote jëm ci yàlla kii muy def lii may xam ne li ma lii sax jomb naa ko def ah kon kay kii kii duma dem ci moom maay gis nga su ko boobaa yow dana la dana la xeeb dana la jéppi ba du ñëw ci yow kum gisati muy woote ni yow mu foog ne noonu la mel mu dellu ba subaa yow yaa mujj nga ne yaa woote jëm ci yàlla waaye mujj nga gàllankoor yoon yàlla moo tax bàyyi yàlla may xikma radiallahu taala anhu mu ne bëri ni koy wootoo jëm ci yàlla ne moom sëriñ la fekk moom mooy gàllankoor yoon parce que comportement yi doy waar yi ñi di gis ci moom dégg nga de moo wax ñu doyal ci yoon woo bàyyi na man tasaba ilaa ilallaahi kep ko xamne mom nga askanu ci yalla wa sara yasuddu an sabilihi mu mujj di gàllankoor ko ku xam ne askanu ci yalla di mujj di di di gàllankoor yoonu yàlla waaye ne faqad barazallahu ko kooku moo lewaatoog yàlla bil muharabati ci xex ko dafa mel ku lewato yalla ci xex rek wa sara fi dégg fi hayzati ahli inkar ba pare mu mujj bok sax ci nga xamne ñom dañ koy ñi nga xamne dañ leen fa far sax ci inkar ka di al asqiya way taxe yi likawne ngir sababan li dalika sabab la ci parce que yaa ngi ne ngay woote yoon ci yàlla mel melukaan woo xam ne inkaarkat yi dañuy ñëw weddi la jéppi la ba basa yoon wa bàyyi mu ne dañuy mujj yow classé la fañ classé inkaarkat yi parce que yaa leen ko yóbbee wala budda lakum min al xudur maana bàyyi mu ne du mën a ñàkk ngeen bu fexe di teew ak ñun fi kasiri min al awqaat ci waxtu bëri ci waxtu yi bàyyi bëri na na fexe di teew ak moom ci yu bëri mënoo gis bàyyi teewal ak ñu ko wuutu ca goox ya teewal ak moom ñu ko wuutu ca ci ci lam nekkoon ci lu bëri ci waxtu yi bàyyi mu ne lu tax li taxuusu an naa ngir ngeen jëlee fi ñun aadaaba suluki teggi ci nu soobu kama axattum comme na jëlee woon ngeen ko xaqayiqal jës bi dëgg dëgg jës na ngeen sooboon ba am jës bu na ngeen di teew bu bare ngeen amaat suluku suluku xaqaayiq maanaam ngeen am aadaab ngeen am aadaab aadaabu suuk comme ni ngeen amoon xaqaayiqul jës bi yoon bi ngeen soobu ngeen am ci yokkute كب نعين فقيهم بام جد ببالي لو من يوم فعل ذلك فقد فاز فوزا عظيما كيف كو خمن دفن لي موادي خصنا كوي خصنا راو راو راو ماغ ماغ ولا بد لكم من تغيير مناكير باي من ورنا تشين ген شانجي شانجي ديغيني ديغيني يو دواري لي نيني ديغ ديكتل ولا بد في الفون ين شانجي ين كومبورتمان ييغا خمن نيغ لين كوي نيغ لين كوي نيغ لين كوي baata alati yi nga xam ne taqawoon fil ixwaan mu ngi mu ngi mu ngi wadd ci ñenn mbokk yi ngi koy dégg ci yenn mbokk yi bàyyi mu ne il faut ñu changé ko de bil yaddi moo xam muy ci loxo wala lisaan la lawal xalb wala xol yaa moom ci loxo la yaa moom ci làmmiñ la yaa moom ci xol la yëpp bàyyi mu ne fi ko changé kama fil xadis comme ni ñëwee ci xadis ba indi salaa salaam waxoon ne man raa minkum munkaran fali xayruhu bi yadihi si tarafa bi lisaani lam yastafii qalbi fa daalika ad'aful iimaan ku gis ci yéen loo xam ne lu bon la na ko dindi ci loxoom bu ko mënoon na ko dindi ci làmmiñam bu ko mën na ko dindi ci xolam donte loolu moo gën a faible fexe leen changement am dégg nga mu ne wala budda liman yuridu intifaa baa mu ne du mën a ñàkk ci koo xam dafa bëgg a jëriñu bi xewsi mu mokkal maa yasduru min naa la dina jógee ci ñu mina wasaaya ci ay ndenkaane nazman loo xam ne dañ ko wéy wa nasaran ak loo xam ne dañ ko wesar il faut ngeen di li ñuy bind wax ji lu am as lu jar a déglu la Baay radiyallaahu anhu nee du mën a ñàkk ci ko xam ne dafa bëgg jëriñu mu fexe di takk takk ñaari façon la jàpp wax ji takk ko gëm gëm fas ko sa xol di ko jëfe wala mokkal ko sax bu ñu ko laajee nga mën koo waxaat loolu yëpp takk lay tekki takk daal mooy luñ jàpp. bàyyi ne na fexe mokkal na fexe takk na fexe jàpp waa ji bëgg a jëriñu lépp lu jóge ko ci ñun mi na wasaare ci ay ndénkaane nazman loo xam ne dañ ko bind mu nekk luñ nase mooy luñ wëy ay bayit ay dawaawin ay xasaayit aw nasran wala sax luñ weser luñ wëyit bàyyi mu ne en fexe di di ko jàpp ma ne wax jii moo tax képp kuy taalee bàyyi amatoo ngànt ci fexe di déglu mbindam Mawlana Cheikh Ibrahim di ko jàng di ko xam dégg nga moo <clears throat> baaw ne haadihi lbaraawa bi la lettre de hifzuha waajibun mokkal ko lu war la de takk ko lu war de denc ko lu war la de li kulli muridin ci bépp taalibe lettre bi ma ne lettre la boo xam ne képp ku ko dégg jëfee ko di nga nekk tànneef ci taalibe Baay fa kullu man waqafa alayha képp ku ci jot fal yet def dégg nga fal yan siqha na ko koppiye na ko sotti wayu laazimaha na ko taqoo wa yaqrawaha na ko di jàng kulla yawmin ah waaye lii day lii day leer na bàyyi na képp ku jot ci lettre bi na koy fexe di ko jàng saa su nekk na ko fexe denc di ko jàng bis bu nekk waaye waaye boo mënta jàngit mën nañ laa jàngal nga ne waa ji jàngal ma lii mu jàngal la jàngal ma lii mu jàngala ba kere nga koy mën wa aqimu salaata wa atu zakaata wa suumu ramadaana wa xajul bayte ngeen jox taxawal waxtu yu julli juróom na ngeen di julli waxtu yu juróom na ngeen joxe we na ngeen joxe azaka na ngeen war weeru koor na ngeen aj néeg yàlla bi man istan ko man ilay jëm ci moom sabilan benn comme ni mu ñëwee rek ci nu ko yent bi jàngale kon lii mooy chariatu mooy lim li wax ji yëpp lu mu wund mooy fonk leen chariatu wa tasaddaqu bil maali li wajhi llaahi taala bàyyi mu ne na ngeen di joxe seen xalal di sarax ngir yàlla saraxe nag gis nga lim dugal ci biir li wëcci laay taala te yàlla rek tax nag fa fi xadis ya muslimin ñëw na ci xadis boo xam ne muslim imam muslim moo ko solo an rasul sallallahu alayhi wa sallam jëleko sent yon lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mooy at tahur satrul iman laab mooy xaaju gëm yàlla kon digle na nañ di nañ fonk laab walhamdulilah wax alhamdulilah tam loolu misaan baatu alhamdulilah mu ne dana mu feetal balance moo tax maa yonent yàlla Moussa yàlla noonu ko xanaa xamoo ne mu buñ jëloon bu ñu jëloon yàlla teg ko ci balance ji laa doon ci biiram teg ko ci balance tur yàlla wala lëngaleen aussi tuyaa moo foor kon alhamdulilah tam la ul misaan di wax alhamdulilah dafay ta dafay diisal balance wax subhanallah wax subhanallah ak wax alhamdulilah tam la aani ñoo ñëpp dañuy feesal balance baskil kere bis pen ci aw tam la aani wala dañuy sax dañuy feesal foofu maa benn samawaati wala diggante asamaan ak suuf màggaayoo moo tax ak foor dégg nga wax mu ne wasalaatu julli nag nuurun wa sabru muñ diyaawun la nuur leer lay tekki diyaawu leer lay tekki waaye différence bi mooy lan nuur mooy leer gaa moom dafay daj goox ya diyaawu moom mooy leer gaa moom yow daf lay niital fi ngay gis nga wax rabis penc foo toll ñu seen foo toll mu leer fenn du lëndëm ci yow loolu mooy nuur dégg nga kerabis penc ngay foo tourné rek ñu niital la ba doo doo doo tàbbi foo xamul loolu mooy diyaa kon dafa mel ni diyaaw mu ngi ci nuur nuur moo gën a yaatu diyaa waaye lépp dafay takkaraar rek ne lu mu amee solo wal quran alquran xujjatun lakka dana mu la layal aw alayka wala mu lay daanu si kaw alquran keroog bis peen ci yonent bi ne dana layal nit ki ba dugal ko fu baax wala mu wala mu lay daanu ci kaw mooy alquran saa kii de ba mu nekk àdduna daan ma jàng lijjantiwul ma woon yoonam nekk ci man dégg nga tuuba day naa rek waaye saa yu ne kii de dafa daan jàngee sama borom heure bu ne mu may nemmeeku di di ma yër di ma jàng di ma jéem a xam di ma jéem a dund suba de alquran dafay mujj nekk lay ñeel la kër bis penc kullu naas yaxdu ku nekk nag mu ngay xëy na calam ne fa baayaxoo nafsihi fa mooti moo bi qoha koo gis mu ngay dox dafa mel kuy jaay sa bopp rek wala goreel sa bopp nit ki bu xëyee dana def lu tax lu mu tàbbi ci loxo yoon ñu tëj ko wala mu moytoo moytu ba mucc rek fanaan ci kaw la la mu mel ni ku xam ne dafa nekk keroog ci rek eh, liggéeyale borom boppam lu lu ko dugal lu ko muccal mu mucc su liggéeyalul boppam lu ko tax tere mucc ba nga du mucc wa qaala taala yàlla wax ci alquran wa huwa asdaqul qaa'iliin moom mooy gën jaa dëggu ji wax yàlla lu mu wax inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaani wa yi dil qurba wa yanhaa anil fahshaa'i day mu ngi digle maandu di digle def lu baax di digle denga nga rafetal jëm ci way di téré def lu bon ak yuñ sib yaag yuñ ngagne ak béw yi la yàlla tere suratu naxal aaya 90 ay bàyyi ngis moo mën a anhu fa awailu kullul way wala fal waylu kullul way fal waylu kullal wayli mun haywa mom gep ak hayla la mu ngi ci kan liman la yatalaqa hukum allah ki mu ngi ci koo xam ne du dajeeg xàtteeb yàlla wa rasulahu ak xàtteeb yonent bi xubul ci nangu bàyyi mu ne dëgg-dëgg xay daal mu ngi ci waajoo xam ne bu dajeeg xàtteeb yàlla mooy lu yàlla santaane wala kab yonentum du d'accord du nangu nangu gu mat sëkk kon daal kon ndekete mucc ak texe mu ngi ci waajoo xam ne buñ ne yàlla wax na loo kab yonentu wax na mu daal di gëm wax ji ci dëgg-dëgg gëm te rafetal gëm rafetal gu mat dégg nga wax bi lakin waaye man ballagahu kitaabuna ma nag lii mënaas la nag ci mboolem kuy déglu wax ci ci xel bàyyi na la kin waaye man ballaxoo képp ko jot na ko kitaabu naa mbind suñu suñu lettre bi wa taaba mu tu wa daaraka tam dabaatal càggante gam nekkoon maa am kanoo la man na ko fa lawu ñaan na ko sanatu daara yi ni texe ñaari ñaari at ñaari kër yaa moom àdduna ak àllaaxira la képp koo xam ne daal bàyyi mu ne banaa boo jotee sama lettre bi jàngal nga ko sa bopp wala jàngal nañ la ko nga dellutu ginnaaw tegu ci yoon naa bàyyi mu ne maa ngi lay ne di am tax aduna ak alaxira afallah amma salaf bàyyi leen yàlla jéggale li weesu li muy tekki mooy képp koo xam ne eh, daal nga jàdd waaye ginnaaw wax jii nga jub bàyyi mu bàyyi nga lay ñaanal jéggal yàlla jéggal li weesu lam yan sajir képp ko xam ne jàggitiwut fa ushidullaha maa ngi seedal yàlla wa shadu te seet la yéen ñii di dégg ne inni man Cheikh Ibrahim barihun minhu aji jëñ laa ci moom set naa wecc ci moom wala ubriu min duma denc ci moom illaa yàlla setee ci moom ak ab yonentum man daal képp ku ma denc yow yàlla ak ab na ci yow te maa ngi maa ngi seedalu yàlla di leen seedalu ne képp koo xam ne jàggitul ginnaaw bu mu déggee sama wax ji man pare naa ci moom wa aleykum bi min salaati fatihi lima ughliq baa mu ne war na ci yéen ngeen bëril jàng salaatul fatihi ak am solo bàyyi na maa ngi leen mu ngeen di jang suratul fatih lima, ughul di bari jang ga amnaaw ni dum deelon ci taalibe yi ne leen kasratug yàlla waxoon ne tudd len yalla tuddu bari de nga la len tuddu yalla mu ne manul bu ngeen amoon junne la ma la mu ñew tuddu yalla ci junne yon lu tax ngeen meuna yegg kasratu qur'an man garantil naa na len bu ngeen lo man leen na len kasratu gu ko ne itam yi nga xamne ya jang suratul fatih bàyyi dénk lu ko jang rek hadd yalla ko ko nga la jangale ci lamagne wa nga xamne yalla rek mo xam dayo wa alaykum bi katimil asrar baye mo ne war na ceen ngeen neub seen mbot taale bi nga xamne mo ngay jaay beuri mbot tolu di walene man ma borom asrar baye ne neubal nëbbal sa mbuut xawlan wa fi'lan ci wax ak jef bul ko waxe bul ko jefe wada de nga wada wa ankum tajahur baye mo ne balen balen feñu feñu bi wonewu bi bi di waxe waxi ni haqiqa foo tool yaa ngay waxi xaqiqa soo dajeeg nit ñi ne xaar mu yóbbaale fii tey wax fi loo xam ne dañ naan askay wax dañ naan askay lii kenn mosu koo dégg dégg nga loolu mooy tajaaxur dégg nga bi kalaami ahli xaqi xaqaayiq ba bàyyi na ko bàyyi ne nañ ko ba mbóot daal dañ koy wax ci mbóot lu zaahir nag xam-xamu zaahir mën nañ ko wax ci zaahir waaye xam-xamu baatin ci baatin lañ koy wax kenn du jël xam-xamu baatin di ko weer ci mbedd mu ngi mel ni nga am sa or bi lu or for for boo ko demoon léegi ca marché ba dem ca pegg yoonu lal ko fa ci saako jóor ko ku ñëw sax du gëb lu or for for dinaan lii du dara rek waaye soo ko defee ci sadafam nag dugal ko ci malet tëj koone ne la dana ko sawar a xool te dana ko sawar a jënd xaqiqa yi lu mu foor foor boo koy sànni ci mbedd mi foo la neex a wax ko dana dem bi kulli mahfilin xadin taqal asraaru min xayju xay suy joru jàmm nekkut ci wax waajoo xam ne fu mu toll rek mu ngay randamte ku di wax rek bàyyi mu ne mbóot jógee na fañ koy waxee boo waxee affaire bi de nekkatul mbóot moo tax mu ne nañ di moytu di waxe waxi kalaam waxi ñooñ xaqiqa fuñ toog rek di wax rek lu ko siraata mustaqim bàyyi na soobu leen yoonu njub moo gën soo mënoon a wax fii xaqiqa yu mel nii kenn mos a dégg itam te boo fa jógee def safaan sàkk ka ba jëriñul la dara xaqiqa bu baax dafay tegu ci sharia bu leer mu mutahara moo taxoon bàyyi na bi bi bi zahiri sharci wa nuuril mubiini o rabbi salikina bila shakkin wala reebi bàyyi mu ne wa tilka shahwaatu yooyee ñoom ay bànneex la yoo xam ne taaxuut ay seytaane la taabudu naa ngeen koy jaamu baada daawa imaan ginnaaw bu ngeen woote ak gëm baada daawal iman bu ngeen woote ay gëm way gëm yàlla ngeen wax waaye laaya jëla lay fàttali wa tilka shahwaatu taaxootun taabudunaha yenn bànneex ya bàyyi mun ay taaxoot la taaxoot mooy topp lu duur yàlla di ko jaamu rek di ko di ko fitna di ko sonnal baana daawal imaan ginnaaw bu waaj ne gëm naa yàlla yàlla wax ci alquran wa qaala taala xaman yakfuru bil imaani képp koo xam ne dafa weddi gëm yàlla wa yuminu billah dégg nga waman euh, waman yakfur képp ku weddi na bi taaxuuti ci euh, ci ak weddi yàlla bañ ko mu bañ loola wa yuminu ana faqad istamsaka dégg nga alquran faqad istamsaka kooke moom jàpp na bi loor watil wusqaa ci buum gu dëgër nga xam ne lan fi saama lahaa du mos a firanci ku weddi mbon gëm yàlla tegu ci yoon yow ko yaay jàpp ci buumu yàlla gi nga xam ne du mos a firanci ku dégg nga lan fi saama lahaa wallaahu te yàlla samiin alim moom rek mooy aji dégg ji te mooy aji aji xam ji comme ni nga ko waxee ci laa yow atasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu dégg nga wax bi loolu mu ngi suratu baqara aaya deux cent cinquante six mu ne wax ja jeex na ma ne lii xanaa doy na ndigal doy na ndigal ci ku bëgg topp ndigal waaye lii ma ne xanaa doy na ci koo xam ne bëgg naa góorgóorlu mu gàddu ko laxbaandoo ko fu mu jëm ànd ak moom mu tekkee ne wa ante yaa Ahmad Thiam Ahmad Thiam lay wax ne ko balliq haadal kitaab na nga jotal mbind mi lettre bi ila kulli man yantasibu lana képp ko askanu ci ñun ma ne yow mbokk mii di déglu ah yaay Ahmad Thiam de bàyyi na na fexeel nga jël lees bi jotal ko ci mboolem ko askanu ci ñun ndaxte yitte kenn ci taalibe yi moo waral ñun ñu jot ci wala yitte ñenn ci taalibe yi ñoo tax ñun ñu jot ci moo tax itam ñu ne ñu war a góorgóorlu ba ba loola law ba pencam yàlla boo ko góorgóorlu na fexe taalibe yi jot ci kon ñu ni nañ fexe yeneen taalibe jot ci fa arsi yaa kulli kabirin bàyyi na fexeel mbind mi na nga ko ci kilifa fi maxallin ko xam ne mu ngi ci place nusqatan ab ab koppi minhu ci moom kabit bu ko bu ko sufiyaan waxee rek mooy koo xam ne kilifa la ci xadara bi mooy lu mel ni muqaddam wala koo xam ne nit ñaa ngi koy déglu di ko topp na ko na ko yónni ab ab koppi min hu ci tel ci lettre bi li yaqrahu ngir mu jang ko kan la koy jangal liman ma hu kep ku nek mo wala man hawla kep ku ko suba mu jangal ko ñu wor ak ñam nekkat wa arju min allah bayna ma yaqar ci allah an yatlaqahu minkum qulubun safiya ma yaqar ci allah de ngeen ak lettre bi fekk seen xol yaa ngi sell ngeen deglo ko xol bu sel wala dox deglo ko xol bañ ko degle ko de nga xel mu sel ak xol bu sel bàyyi ne loolu laa yaakaar ci yéen ne wa aadaanun waaye maa ngi yaakaar tam ci yàlla ne da ngeen ko dégloo nopp yuy takk mu ngeen ko dégloo da ngeen ko jàpp takk ko wallaahu yàlla yahdina yal nañu yal nañu gindi wa yahdikum gindi leen wa lii mooy lettre bi wa kataba Ibrahim ibnu alxaaji Abdullah Tijaani waana Cheikh Ibrahim a Tijaani moo ko bind dégg nga bi madinati Kawlax ci Kawlax ay nga xarasallaahu min kulli baasin amin madina gaa moom yàlla aar ku ci loolem musal ko ci mboolem luy fitna ak gàkk-gàkk mu ngi ko bindoon 1349 ci hijriya lettre baa ngi noonu wa salli llahumma wa sallim ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi aba seen mbokk xasan kebe suufi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu abonné leen ci seen chaîne youtube la Ibrahimiya TV la Ibrahimiya TV la Ibrahimiya TV bu leen fàtte notification bi pour ngeen mën a jot suñu yeneen i vidéo